beneen liggéey bu rafet bi nga xam ne gendarmerie bu Sénégal daan nañ koy def daal di démanteler nag vaste réseau bu mag a mag bu wàllu cybercriminalité ci diwaanu Wakaam lopp juróom fukki ci ay ordinateur ñu teg leen loxo ak lu tolloog juróom fukki ci doomu Nigéria yi nekkoon fii nag di def ay ñaawteef ci seeni ordinateur ca lañ dem toog daal di vider sa compte bancaire naka noonu def ay carnet de chèque yu bon doomu Nigéria yooyu lu toll fukk ak benn ci ay borne wifi moom lañ defoon ca carte ba dëkk nag ci juróom ci ay kër ñoom nag li leen feeñal moo nekk dañoo bëggoon a dugg ci système bu Sonatel gannaaw nag société téléphone bi nag ci la def plainte capitaine Touré ki nitam ci jàppalulu ñii di escadron surveillé bu d'intervention bu Dakar nag ci lañ teg loxo yooyu le bandi gannaaw ñetti ay bés ñu leen doon wër waaye nag ndimbalu askan wi amoon na ci solo lool ndax ñoom ñoo leen woon fi nga xam ne foofu la band yi dëkk ci loolu ñu jàppale ñoom ñëpp yóbbu leen ca poste ba mun a ubbi enquête bu yaatoo yaatu bu ko defee réseau bi li ci des yëpp ñu mun koo daaneel